ci loolu nga wax ci jumtuwaay yi sëñ bi yoroon ngir jëfandikoo mu doon jëf wax nga ñu nga xam ne ak bëggam akuk dogoom akuk góorgóorlam moo ko ko may waaye ak nga xam ne jag lekk suñ boroom la mooy suñ boroom may ko ba mu jekk ko comme ci nu sixal yi nóoral lisaan wal kitaab maana xidmat yi la daa ahlal kitaab kon loolu benn xaaj la ci anam ci jumtuwaay yi nga xam ne sëñ jëfandikoo am na beneen xaaj nag boo xam ni jëfandikoo ko te mu naaw bi naawu bi bayaan bi ak xeetu xam-xam yooyu aju ci loolu sax sëñ bi da koy wax fu bari nee na dafa yi li xayri umriya xilaa wal hadayaan am na feneen fu mu wax ne nax yi mahal bayaani wal badi mahal mahaani jaa min al kon bagage yooyu ak jumtuwaay yooyu la sëñ bi jëf ko boole ko nag ak bëgg ak góorgóorlu am passion ci li ngay def ba man cee indi ak it may gi ko suñu borom may mu jekku làmmiñu arab ngir bañ a guddal tamit ci wàllu googu dañuy joxaat oustaz fay moom itam ñu bàyyi ko lim doon wax ñëwal ñu ci rawatina xasida googu nga xam ne mooy asinu muhjama jërëjëf kon ginnaaw bi ñu waxee ci madax bi nañ nga xam ne mooy itam ay cax la daanaka ci bariwut lu ñuy dox di dajeek moom fenn moom boo xam ne ay baat xuruuf mutafarixa la ba pare wazn bi baax ba pare mu indi ko ci kayfiya boo xam ne kayfiya bu yéeme la moo tax ba mu koy tàmm daf ne na nga def ndànk nanga nga bu baax ndax xasiide gii di bëgg a ñëw kat maanaam daa weex waaye daa ñuul maanaam mel na ni sahlul mumtani lañ ko mën a tuddee day ci kaw waaye lu naqaree lijjanti la ci biir ak ràññee aku settental ci xóotug ëdëb pour xam li sëñ bi jubloo wax du yomb ci lépp nag ak delloo boppam subhanahu wa ci lay wax naan ashinu mujamatun walkaafu warraau lirraai walbaai loolu ku ko dégg ñu bëgg laa wax lu lu mu ci wax wax dëgg fa yàlla dafa xorom te siin mujama ak kaafu ak raa buñ ko boolee mooy lan ashukru mu ne nag moom ak cantam kon ko ko moom muy lan muy arab suñ borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy di albarru ba tey kon daf ne ak mel ni moom ki mu koy joyal jëme mooy suñ borom subhaanahu wa taala nga xam ne kon dafa tijji xasida gi rek yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy di arab ba pare nekk tam mu waxaat ne raaun wa baaun lahu maqlubatun wa lahu albaau walxaau bil ihmaali raa'i kon waawun wa baaun raaun wa baaun lahu maqluba léegi raa ak baa day bañ nga ne ko rabbu moo tax mu ne la lahu maqlubatun wëlbati ko boo wëlbatee lu mu lay jox dalay jox barrun boo ko wëlbatee mu jox la barrun waaye boo ko wëlbatiwut jànge ko comme raawoon wa baawoon rek da jox rab moo tax mu ne la maqlubatun walahu albaau walxaau bil wa raa'i kon dafay mel ni suñ borom mooy barrun waaye mooy baxrun mu ne yaun daalan wa yaan minhu jaada bihi alyaau wassiinu wa huwa taau walhaau loolu itam boo ko xoolee muy huda muy ak njub mu ne ki ko ko jox ci dara ci darajaay ki ko yàlla joxe mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te mooy ki tu tudde Yaasiin ak Taaha moo tax mu ne haun wa daalan wa yaan minhu jaada bihi alyaau wa siinu wa taau wal haau muy Taaha mu dellu waxaat ne kaafi walaami bihi aataytuhu alifan allaamu min baadihi wallaamu wal haau kon mu mel ni def na rek jël naa sama lépp jébbal ko suñ borom subhanahu wa taala kaafi wala mi lahu ataytuhu mooy kulli kon laam baadahu laamu wal haaw mooy mun dal waxaat ne aynan wa baan wa daalan laa yazaalu bihi xaan wa daalan wa foofu itam mu mel ni dafa mel ni moom daal li mu fas yéene nekk mooy al abd boo xam ne dafay nekk al abdul xadim di liggéeyal ki nga xam ne moo di sayidna muhammad sallallahu wa sallam ba ci xasida gi sëriñ bi di ci wax ne daali wafaai wa ayni kulla azminatin bihi ka jini laamin baadahu yaau mooy dafi wa jalbi sama xëcc ak sama ñoddi lépp ñaan suñ subhaanahu wa taala faddaau mujamatun warraau faaraqani wal baau bil xas anil xaau wal baau loolu itam mu ne daa boo xam ne dafa am tomb buñ ko boole ak raa durru lay doon loolu lépp nag mu ne nag suñ boroom dafay mel ni daqale na ko sori na ko moom ba nga xam ne ki ko naroon a jëme ci moom mooy iblis ci perte la mu waaye lam doon sàkku ci sëriñ bi amu ko mu ne saadi wadali waraa il yowma jaadalahu ashinu mujamatun warraa walxaau te mooy li nga xam ne mooy sama dënn suñ borom mi ngi ko leeral subhaanahu wa taala muy sadr ak charh mbokk yi ngeen xool loolu ni mu yéemee ñu tànn ci rek bayit yooyu te xasida gi toll ci ñeent fukki bayit ak ñaar yoo xam ne lépp ci ay xuruf la ko sëriñ bi tënk loolu xam ngeen ne wax dëgg fa yàlla wane na lef wu mag bi nga xam ne moom la sëriñ bi nekkoon ci jaani boobu nga xam ne moo di wàllu ëdëb waaye udabaa yi daan jëfandikoo xasal mooy comme ni ñu ko waxee woon way jigéen waneb taaram aku meloom sëriñ bi nag moom day mel ni léppam rek day jooy jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala hamad suleyman di xasida goo xam ne loolu la waaye li gën a yéeme ci xasida gi mooy sëriñ bi tashwiix bi mu def ba pare dog laa wax nag njëg gi maanaam léeg-léeg booy jaay dara da nga koy publicité boo ko publicité nag ba nit ki ah lii de am na solo lu muy daal def da laaj waa lu muy jar dafay mel ni noonu la ñu defal ci xurul nii bi mu koy wax daf leen a wax nu ñu mel wax seenu melokaan ba ñëpp xamem leen mu ne ah seenu can nag mooy lii loolu yi dafa ko bara adabiya boo xam ne sirrul ilaahi di ciy dugg ni ngay mën a tàggate nit ki xëcc ko ba mu dugg ci euh, jaamu borom bi subhaanahu wa taala yaakaar naa ma ngay wax naan fuqna alxanaadila nuurum tiibuha abiqun yuxjil na badra yadin fawqa alsamawati lahunna jismun ratibun xaalisun xadirun daw uttaraaibi jaalin liddu junnaati miratu azwajiha abdaanahunna naam is nuuru abdaaniha yusri sirajaati melal leen ci melo woo xam ne seen yaram wana melak leeraay gaag lépp melal ko ba pare nag yegg ba ne seen i borom kër bu ñu soxlaa seetu sax mën nañoo seetu seen yaram ndax ab leeraay waa ji ne ko waaw ñooñu moom ku ci bëgg am nooy def mu ne fa mahruhunna ittiqaullahi fatiriha bi tawbatin min hawa nafsin bi taati li la ciy jotale daal mooy ragal yàlla subhanahu wa taala moom mi leen sàkk tuub dem ci yàlla te topp ko te rafetal topp ko soo defee lool da nga jot ci ñooñu nga xam ne ñooy xur yooyu ma la doon melal kon ngeen gis uslu bi muy jëfandikoo itam fànn gu nekk bu koy jël ni mu koy jëfandikoo bil uslu bi rabbaani waaye lépp fencee ci wàllu ëdëb lépp fencee itam ci wàllu lépp luñ soxla ci li nga xamante ne bii moom la ñuy xam-xam boobu nga xam ne mooy ëdëb kon incha allah dañuy delloowaat kàddu gi jërëjëf oustaz Ahmad xam naa ne dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek duñ ko commentaire ñu jox sëriñ Alaaji Lo mu ñëwal ñu ci xasiiday Cheikhul Xadim ak mbindam mi jeexital ji mu am ci nit ñi bismillah waaw xam nga ëddëb ci boppam naka jëkk dafay am lu ci xolub ki koy dégg ak ci xelam wala muy xasida goo xam ne ëddëb ba dafa rafet rekk moo xam ki koy dégg xam na ko lu mel ni xoolamant yi wala ki koy dégg xëmu ko mu mel ne koo xam ne euh, jëmmi waxi ni mooy neex ci moom rek amoon na benn adib bu defoon ak xasida gu rafet a rafet di ko jàng ci kanam ak gone gone gu tuuti gone gu xam ne xamagut li mu firi di ko jàng gone gi di euh, siiramtalu di di di di di bànneexu ba xasida gi noppee mu ne gone gi li ngay doon def lu mu doon mu ne ko li nga doon wax daa neex rek mu ne xanaa kon danga maa ñee mu ne ko wax dama laa ñee mu ne kon bëggoon nga may sa baay mu ne ko ah, déedéet bëggoon naa ngay sama yaay dem xam kon xale bi li xamul sax li xasida gi firi waaye rek neex na ko neexaay boo xam ne mën na koy weccee baayam waaye mën na koy weccee yaayam <laughs> eh, xasida ni muy jeexitale ci xolub walla xelum ki koy dégg tëkkuwut ci kooka xam ko ndax yàgg ngaa gis xasida ñu di ko jàng murit bi koy déglu di jooy wala muy infial muy yëngutu yëngutu boo xam dañ ne ñëpp ne lii xasi leeru xasida gi moo ko jàpp loolu ci li muy jeexital la bokk noonu lay jeexeetal na ci boroom xam-xam yi xam nga ne way buñ koy wax gànnaar la dëkk am na naar bu ñuy wax euh, Cheikh Ahmadul Fadil am na xasida gum bind di ci tagg Serigne Touba di ci xam le ne mel ne kuy kalaame Serigne bi an an an naxwu wal lugatu ilmu al arabi wal juudu wassaxaau inda al kurabi daydanuhum fajaahum zurrutabi ahmadu bamba man ala birratabi najlu habibillahi du taaddubi fa salaba al jamia ay salabi mu ne sëriñ tubaa mi nga xam ne mooy borom teggi eh, dafa dikk sunu dëkk fekk sunu alal muy eh, naxwu ak luxa fekk suñu jikko muy tabe ak njàmbaar mu nangu lépp yóbbu ko dem ba naan ko ahmadu bamba yaa axa taqarrubi afa yaxillu laka dulmu larabi bi axzi naxwihim wa axzi l adabi wa axzi juudihim bi xayri wadabi ne ni yow sëriñ ba yow mi nga xam ne nee nga doo tooñ waaw yow lu tax lu tax nga tooñ lu tax ngay nangu sun alal ndax loolu yàlla dala ko daganal te yàlla moom du daganal tooñ eh, bi ak nax wi bi ak si adabi bi ak si jënd bi kon eh, mbindum Sëriñ Tuubaa li mu jeexital ci ñu ko xam noonu la jeexital ñu ko xamut ni mu jeexital ci nit ñi noonu la jeexital ci malaaka yi noonu la jeexital ci ki nga xam ne moom la ko doon defal moom la ko jeexal sax ci al arshul azim ndax isa katabtu isa katabtu tazza arshul baaqi fa sabahat malaikatu baaqi wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa dafa mel ne waxtu wi li ci des taxut a bari kon sunu gan yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ seqaloon waxtaan wi muy sëriñ Ahmad fay ak sëriñ Alaaji Lo xam naa ne dañ leen di jox rek kenn ku ci ne joxe kàddam gu mujj ñu soog a ñëw ci ki nga xam ne moo war a jël kàddu ci turu njabootu sëriñ Mouhamad Dem muy sëriñ Mbàkke Dem kon sëriñ Alaaji bisimilah. jërëjëf kon dañuy sant bu baax di gërëm ñu doon teewlu. di jéggulu itam ci lépp loo xam ne rot na ci waxtaan wi te dëppoowut ak li nga xam ne noonu la war a demee ñu ngi koy jéggulu bu baax tey tuub di li ñuy mujj wax rek mooy di soññaat ñi nga xam ne ñoo toll ci wàllu gëstu sama classe gi ñu bàyyi xel mbindum sëriñ bi bu baax a baax a baax nampatal ci ndaw ñi rawatina nag ci matière yi nga xam ne dañ koy faral di jàng ci école yi muy balaaxa ak adab wax dëgg fa yàlla waruñ cee jéggaane dara lépp sëriñ bi bàyyi na ko fi kon ñu bàyyi xel bu baax a baax nañ koy jàng di barkeelu wax waaye itam nag nañuy xool leneen yi nga xam ne moo ci nekk ci sew sew te xam-xam yoo xam ne yu xóot la yoo xam ne mun te ñàkk ci dundu doomu aadama bi loolu itam nañ koy bàyyi xel bu baax ñu ngi tënk kàddu yi foofu di gërëm ñëpp di rafetlu lu baax a baax jotaay bi di ñaanal daayira bi suñu borom yóbbu ko fa ko weñor bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ eh, Ahmad fay kon sëriñ Alaaji ñu jox la nga wax sa kàddu yu mujj yàlla bu baax a baax tey soññ suñu bopp di soññ sunu bokki bi yépp ci xéewalug mbindum Sëriñ Tuubaa mi mënu xéewale ñu jéem koo jariñoo jariñoo ko ci di ko jàng jariñoo ko ci di ko teral ni mu la alquran jariñoo ko ci di ci settantal ndax njàng xasiida ni muy defaree eh, ab fard ak nit wahab li man yaqra'uhu xayra muraad waslukhu yaa rabbal waraa xayra maraad ku jàng xasida sunu borom da koy sóob ci yoon wa gën a rafet noonu mu amee solo ci kenn ni noonu la amee solo ci mbooloo mi noonu la amee solo ci barab yi moo tax di ko jàng lu am solo la loo xam ne ëpp naa sàggane ak lu mën di xew ak lu ñu mën di wax di jàng xasida yi moom baax na di ko settantal baax na di ko am baax na di ko teral ndax gànjar la goo xam ne eh, sëriñ Tuuba ab toolam la woon boo xam ne da ci daa déglu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te it bu ñu ko defut noonu it malaaka yi ña ngi koy def noonu isa katabtu yi ma doon wax isa katabtu sanarsul maliki wax tas bi soo ko fonk de malaaka yi ña ngi koy fonk su neexut yewet malaaka yi ma ngay neex ci ñoom aras mi ne mooy al arshul borom du ko sàllalu mukk aras moom day jaayoo ngir mbind mi waaye hajat qasaidi qulubal anbiya yi lu am solo la ndax yonante yi ci seen bopp buñ déggee xasid yi ko nga xam ne dangaa war soññaat sa bopp waaye eh, yëngal la lu lépp doole kon ñu ngi ci sant bu baax a baax di ndokkeel mbokk yi di taxawu lii di leen sant ci boole gi ñu ci boole di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq ak taysiir eh, ci barkeem sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ Alaaji jërëjëf sëriñ Ahmad Faye kon dafa mel ne waxtu wi moo ñu jàtt waaye li ñu waroon a waxtaan ak sunu. mbokk yu tedd yi desoon na lu bare bare waroon nañoo ñëw ci sëñ bi ni mu defee euh, tatmim alfiya ak xasida kaxab googu baanat soxaada moom itam ni ko sëñ bi defee tatmim ak ni mu defee taxmiis ak ixtibaas ni mu ni ñëwee ci biir xasi xasidaam yi nga xam ne ixtibaas mooy nga jël baat wala aaya boo xam ne ci alxuraan la ràbb ko ci say wax ba ko gis yaakaar ne ci sa wax la bokk te fekk alxuraan la ni mu ko defee ci muqaddamaat la xadd jaakum xad jaana maadihan minallaahi silhasil hasim mu faddali nga xam ne baatub la xadd jaakum boobu sëñ bi da koo def iqtibaas ci biir alquran ak bayt woowu ci wakaane xaqan xuttulahoo kuliyati fi laalani wa sirri wa huwa xaada wala ni nga xam ne baatub wala ni boobu baatub alquran la sëñ bi ràbb ko ci biir bayit wi ba nga yaakaar ne dafa dëkk ci bayit wi te walan googu mooy walan yaj'al allahu lil kafirina alal muminina sabilan nga xam ne ci biir bayit wi sëriñ bi day leeral walan yaj'al allahu lil kafirina alal muminina sabilan sëriñ bi da koo leeral ci bayit wi ba noppi soog a indi nag walan gi te loolu mooy suñu borom dafa wax ne ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla yéefari duñ am ci ñoom yoon te tey jamono yu ñu nekk ñu gis ñu jëm ñu gëm yàlla ñiy woote woon dañoo gëm yàlla yéefar yi am ci ñoom alfu sabil kon loolu mooy laaj mooy wane ne bayit wi aaya boobu am na aw déggin déggin wi nekkee mooy al muminina googu wala ni ci àllah li kay fi na alal muminina alif laam googu nekk ci muminina googu c'est un article qui détermine la perfection nga xam ne day wax ne way gëm yi nga xam ne seen gëm dëgg dëgg mat na yëfar yi du man ci ñoom dara moo tax sëriñ bi jiital loolu ca bayit boo xam ne xuttulohoo kulliyati Euh, fil alani wa sirri sama lépp dama koo jël jox ko sun borom ci lu feeñ ak ci lu nëbb nga xam ne day wane wane tawxiitam ju mat sëkk tawxiitam ju sell ci suñ borom comme ni mu koy waxee nga xam ne day indi léegi-léegi lu ñuy wax arfaxa tawxiid jox ko sun borom léegi-léegi mu indi afdalu tawxiid jox ko sun borom léegi-léegi indi ab kaar tawxiid jox ko sun borom nga xam ne loolu lay feeñal ci biir woowu kon yooyu yëpp bëggoon nañ cee wax waaye waxtu wi moo ñu ko mayul te it dañuy faral di wax ne loo xam ne du doy loo ci am mu doy kon yaakaar naa liñ jot a dégg ci mbokk yi doy na sëkk neex na te wane na sëriñ bi jekku gi mu jekku arab wane na sëriñ bi ni mu respecté xam-xam ak ni mu ci daan sonnee kon loolu yëpp ak cant la ak it euh, santale sunu borom Cheikhul Khadim kon daal ci gàttal kàddu yooyu rek lañ doon tëjee di wax wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin audu billahi min alsheytaan alrajim wa inni uiduha bika wa durriyataha min alsheytaan alrajim rabbi audu bika min hamasaati alshayatini wa audu bika rabbi an yaxduruni bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaan wa tamkin eh, mbokk yi fi teew ci tuuru sëriñ Moustapha Mouhamad Deme mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Deme Euh, ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sel moom moo bëggoon a ñëw ànd ak famille bi waaye yàlla dogal mu am ay tànk-tànk amit ay xew-xew yeneen yoo xam ne dafa am ñu fa war a teew waaye yebal na ab délégation yebal na rakkam sëriñ mbay dem moo nekk nii ci sama càmmooñ euh, yebal na it sëriñ xaadim dem mooy doomam la ak ñaari jarbaatam sëriñ Moustapha Touré ak sëriñ Moustapha Jaxate euh, kon ci turam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell euh, di sant cant gu ñu tibb ci sunu xol daayira xuratul ayni lii ngeen def lu am solo la ndax xam naa ne ki nga xam ne mooy boroom ëtt bi muy sëñ Sohaybu lii lu ko neex lay doon ndax digganteem ak sëñ Mat Dem mii ngeen jox cër bi tey diggante bu war a tax la woon diggante bu sori la woon ndax man maa ngi fàttaliku booba gën na noo doon gone am na màggal goo xam ne bi nu màggal see màggal gu njëkk gi sëñ Moodu yàgg na Tuubaa lool te tàkkusaan bu jot daana ànd ak ñun doxe ci këram gii ci wetu kër sëñ Sambay Kéré ñëw ci kër sëñ Soy bu gii booba diggante ñaari kër yi ab àll fi dox def na ko lu mu gàtt gàtt lu jege fukki fan yoo xam ne ngoon gu jot bu ñu julee tàkkusaan ànd ak moom dox ba ci kër gi bu ñëwee mu yàgg ak sëriñ bi lool ñu delluwaat booba ay tut tànk lañ yoo xam ne fu mu jëm ànd ak ñun booba fukki at amagu ko man euh, ak yeneen ak yeneen doomam ju tudd sëñ Baara dem nekkoon na fi ak yu bari kon bu ñu demee ba waa këram xalaat lu mel nii. Euh, awma lu may nattable ci ne Serigne bi ci boppam du ngeen dañ mukk def lu ko neex waaye lii moo ci raw kon loolu ñu ngi ciy bég bu baax waaye sunu mbokk yi nga xam ne ñoo fi doon def waxtaan yu riis yi waxtaan yu am solo yi du nu jàll mukk sëntunu leen te ndokkeelu nu leen ndax thème bi am na solo lool waaye macha allah jox nañ ko ñu ko man li nu fi dégg yéem nañu lool jàngaat nañ ci bu baax a baax a baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu yokk seen xam-xam mu ubbi leen seen dënn te yàgg ko def ñu yàgg fee daja ak ñoom eh, sëriñ Mouhamadou Dem nag mu ngi gane àdduna atum junni ak ñett téeméer ak ñett ci gàddaayu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëppoog junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ci juddug sayyidina isa alayhi salaam ci dëkk bi ñuy wax kër Makala fu soriwul Tiwaawoon ndeyam mooy soxna Aminta Ba doomi Abdu Xaadir Ba mii dëkk Boofel góor gu mag googu te am cër bu réy ci yàlla baayam mooy Mamoor Yaasin Dem di sëriñub daara bu waa jamonoom ñépp xamoon moom sëñ mët dem sëtuna ci maaram ñetti yoon sëtu maam Balla Aysa la waaye sëtu maam Ahmadou Farimata la sëtu maam Ibrahima awañang la it loolu leeral ku du fi xaj waaye ku bëgg lu ci gën a leer man ngaa dem ci benn document boo xam ne moom sëñ Modou moo ko dajale woon def ci arbre généalogique bu sëti maaram yépp seeni doom ak seeni sët fu ñu mën a jóge Euh, mi ngi jàng alxuraan ci baayam maam Mor dem ak lu bari ci xam-xam mottulee ëlluwaam ci daaray sëriñ Mbàkke Buso euh, jàngale na ca daaray sëriñ Mbàkke Buso diir bu yàgg soog faa jóge muy ku teel wattu alxuraan yàlla may ko it mu teel a ci xam-xam doy na firnde ci loolu tànn gu ko sëriñ bi tànn mu koy jàngaleel ci wetam njaareem daaraam jooji sëriñ bi da ko fa dëloon nekk na fa di jàngale lu mat ñeent fukki at yu tegal fa la génne àdduna man ak samay ñi ëpp ci samay mag ak samay rakk ñëpp fa la nu juddoo eh, daaraam jooji ñu bari ci kër yi diine yi ci senegaal jaar nañu fa rawatina muriit yi yàlla may ko itam ku mu jàngal di su ci xam-xam euh, ay mbindam nag maanaam yi nga xam ne jot na ko fay bàyyi ci liggéey bu meññee na ci xam-xamam bari na waaye danañ ci lim rek tuuti ba ci njëkk mooy tafsirul quran bi nga xam da koo def ci wolof muy mawridu samaan fii tafsirul quran ñu ngi koy jaay mool nañ ko ñetti yoon Euh, téere Serigne Touba bi ñu wax Sa'aadatu Tullaab it Serigne bi i'raab na ko ba mu jeex ci wolof moom itam mool nañ ko ñu ngi koy wecceeku dongay daara yi soxla nañ ko lool mi ngi tudd tasxiilu si'aab fi i'raabi Sa'aadatu Tullaab bind na ab téere ci faj ay ragg yaram téere boobu mu ngi tudd al istixnaau an doktoor bil xijaabil mastuur li kulli man laysa saa kasalin aw futuur li dale ci bopp ba ci we cir bu nekk sëriñ bi jox na la ñetti tegtal yoo xam ne lu cay metti mën na ko faj am na it euh, téereem bu tudd yi mat a xam yi mat a xam mu dajale ci faratay jëmm yi ci wolof la dale ca laab ba ca tudd ba ca rendi ba ca yooyu yépp nga xam ne euh, ñàkk a nekk ab jàngkat terewul julli da ko war a xam ndax mooy yi mat a xam ci moom loolu sëriñ bi def na ko ab téere euh, muy farata jëmm yi ci wolof tënk na itam bunti xam-xam yu bari yu jafe woon ci ndongay daara yi lu mel ni buntub laab xeeti ndox yi buntub anwa'u sharika lu mel ni xeeti sëy yi ak yu baree bari bunt yu bari yoo xam ne ñi daan jàng dañ ci daan yegg mu mu jafe leen nga xam ne dañ koy jàng ay yoonu yoon te du tax xam ko moom da koy jël tënk ko ci ñetti way walla juróom wala lu mu gudd gudd fukk nga xam ne boo ko mokkalee dëkke ko jàng da mujj nga euh, moom ko yooyu fecc na ko ba mu neex a xam euh, bu ñu jógee ci wet yooyu it aw nekkinam ci jamono ndax loolu daa baax ci nit aw nekkinam ni mu nekkee woon ci biir société bi ku bëggoon sëriñ Touba jaxasoo lool ak waa këram. Euh, ñépp ñi ëpp ci ñoom tudd na leen ay doom la dala ci sëñ Modou Moustapha daanaka mën naa ne doom yépp ku mu ci tuddewul doom it ku mel ni sëñ Fallu tudde na yaayam soxna aw bu sa doom sëñ Abdou Xaadir tudd na ko doom waaye tudd na soxna Aminta bu sa doom sëñ Mbàkke bu sa man mii maay ñetteelu turandoom ci sëñ Mbàkke bu sa ndax ñim ku ñam ko njëkk tudd ñëpp dañoo dem tudd na ko mu dem mu tuddiwaat ko mu dem mu tudde ma ko man mii sama yaay nee na ma bi ñu la ko tuddee damaa dem ne ko eh, yow de mbàkke bu sa muy jug la moom mbàkke la sant moo tax muy tooñ bu sa buso bi mu ne ko mbàkke bu sa muy jug la waroo doom ji ndax loo ko mu dem mu ne ko kii nañ ñaan mu toog kenn nit tudde ñetti doom loolu ak kefe luy suut ak kefe luy suut loolu eh, kon jaxasoo woon na lool ak sëñ Touba waaye jaxasoo na lool ak njabootam ñëpp ñëpp ñëpp duma ci seppi kenn eh, mbokki taalibe yi mu fi dayal ci sëñ Tuubaa yi noonu la meloon ak ñoom Cheikh Ibra Fall tudd na ko doom Cheikh bi Fall tudd na ko doom man naa ne eh, sëñ Mor Xarisi sëñ Malick baasin ak daanaka sëñ Moussa Ka ñu ñëpp tudd na leen doom te tudde doom magum jëmm kum tudde sa doom bëgg na sa wutul sax kon. Eh, noonu la demee woon ci mbirum xam-xam noonu la demee woon ci mbirum ñi mu nekkaloon ay mbokkam mbokki geñoo mbokki meenam waaye mbokki pas-pasam noonu la doxale woon ak ñoom euh, mënuma tëj te waxuma ni daan doxale ak sëriñ si sëriñ sunu sang waa ka sëriñ ñi ne ci dëkk bi moom Touba benn yoon la fi daan ñëw par at xanaa xew jàmpare bu mënta ñàkk ñëw mu ñëw te du fanaan ndax daara la yoroon ab sëñ daara ko ne xam na du am jot waaye bu fi masaane ñëw diggante ñaari màggal yi daana ànd ak gerbaat na mu ñox sëñ Cheikh Ndiaye xëri bu sa xam ngeen ko mooy jiite jàkk yi sëñ Abdou ji képp ku doomi sëñ Touba wala ku koo xam ne ku jege sëñ bi la lu mu xat-xat dana dem nuyu si la dana dem nuyu ji la jokk mbokk gi te buy dem lu mu am dala koy dala koy yitaale ñi ko daan gis nee nañ daawul doxee tubaab lu weesu ab turki njaarim am na yoon wu Cheikh Ndiaye xëri bu sa moom ako nettali mi àndaloon nee na kere daa ñëw ci sëñ Fallu gis sëñ bi jafe ko lool mu toog fa sori mbooloom bi sëñ bi génnee nit ñuy siyaare di dem xëlëf xëlëf ja bari lool ba mujj am kenn ci ñi ne ci waa kër sëñ bi bëkk néeg yi xam naa turam waaye jërul wax mun ne eh, may leen ma dem mu siyaare ma dem may leen ko mu siyaare balaa sëñ bee fatu sëñ Fallou dégg ko daal di ay loxoom ne ko sëñ mat dem ngay wax may leen ko mu ñëw mu daal ñëw sëñ Fallou jàpp ñaari loxoom ne ko jàpp naa la ngir mbir yu bari waaye naa la jox ñaar ngir taalu bi gi nga am ak ngir mbokk gi ak cir bi yàlla def ci yow muy xam-xam bi daal séq ak moom maslaa yu bari macha allah yoo xam ne ku koy dégg te ci moom dara faaw dana la bégloo waaye ka àndoon ak moom Cheikh Ndiakhate Bousso nee ne keroog suñ bi xaal la yendoo naan ci alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin mu dégg naa sopp nañu rek ñun sant nañu waaw sëñ Fall ne ko sopp naa la ngir ñetti mbir mu jóge fa am xaal sant yendoo sant yàlla bëccëg googu yépp kon moom eh, duñ def lu dul di ñaan ci yàlla mu fayal ko diine ji waaye fayal ko xam-xam fayal ko mbokk gi fayal ko taalibe gi ngir bañ a guddal foofu la nuy yem tey ñaan ci yàlla mu tëbbunu ci seen leer ñoom ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu sëñ Moustapha Mouhamad Dem ak ci sama mbokk yi ma àndal tey ñaan ci yàlla ñu yàgg fee daje yàgg koo def te yàlla nangul nu assalaamu aleykum wa rahmatullahi